tey social la waaye li ko li ko ëppal solo mooy ñi ay chef d'entreprise lañ parce que seen natt bi leen yàlla teg teewul ñu mën a euh, solliciter ñu former leen ndax comme ni mu ko waxee lii ñu leen defal lépp ñoom ñoo ko soxla te ki bëgg day neex a dimbali ñu war cee jàng ne c'est vrai que handicap handicap la waa ci ci yaram waaye doo handicap ci xel du handicap ci liggéey ndax ñëpp xam nañ ne am na président américain boo xam ne nii euh, nekk na président nekk kon tey jii ñun ñi nga xam ne nii ñuy jàpp ne handicapé wuñ sax ñun léeg-léeg ñun sax dañ ki gis ñu ci bari ci ñun ñoo gën a euh, di ndax ndimbalante gi am ci seen biir ci seen biir euh, léeg-léeg ma ne amul ci ñun waaye ndimbalante gi am ci seen biir moo gën a suudewu kon nag tey man dama jàpp ne ñoo xam ne nii dañ leen war a jàppale ñoom ñu mënal seen bopp kon loolu lu am solo la te yaakaar naa ñu ngi ci euh, leneen li ci des mooy dañ cee profité rek de l'occasion parce que ñëpp xam nañ ne xalifa général de Tidiane dafa wax ne sëñ Babacar Mansour daf ne ñu joxe ay ndimbal ñu ne nak nañ ci profito ci ñom jox leen ko ñom ku ko ci soxla nga jël ko ku ko wul da nga gis sa morom ko soxla ndax gis na ci ñom ño xam legi ñi ngi lamb seen pos di may aji jaara kon ñoñu ñaan ci wuñ fi ndimbal kon buñ jàpp ne tey jii cérémonie la pour di dimbale ay handicap cérémonie bi li ko lëmb mooy jox leen seen i diplôme déglu seen i doléance li ci des dañ ko cee yokk rek euh, liñ demandé nag damay wax ne lu mën a nekk la te incha allah danañ ko def parce que fierté la ci ñun ñu ne fii mooy këru handicapé yi euh, euh, kër googu ñoom ñu mën fa nekk di fa daje di fa am formation je parce que damay wax directeur Cœur de Ville ñu xool léegi yóbbu leen su fekkee fañ daan defee foire bi am na place bu ñu leen fa mën a jox nga xam day nekk seen place définitive même bu foire amee foofu lañ leen di fekk bu foire demee tamit foofu lañ leen di fekk ñu def ko foofu. bu ñu xoolee ne foofu tamit gënul ci yéen ndax fu ngeen mën a dajaloo ñu wut beneen place boo xam ne nii ah xëy na du ñàkk ngeen wut génn kër. ñu luye ko incha allah pour yéen ba yàlla def ñu mën a leen wutal kër gu ngeen moomal seen bopp wala yéen seen bopp ngeen liggéeyal seen bopp lu leen mën a may kër. daal vraiment euh, am naa mbégte ci yéen te sawar naa di daje dajeeg yéen incha allah ci waxtu ngeen ko bëggee. lii nii nekkul gulet ci ci ñun parce que Serigne Mboup euh, lu nekk defal nañu ñun waa association bi façon formation bu nekk may nañu ko. ba ci man mii sax defal na ma formation ba pare moo ko fayal boppam donc ñun Serigne Mboup duñu mën lu dul ah, ñaanal ko yàlla mu yàgg fi lépp loo xam ne mi ngi koy sumb aussi ah, yàlla teg ci loxoom ba loolu àgg.